sant Sëriñ Tuubaa ndax lu lu lu lu te ngeen te ngeen ñu maytu te ngeen ñu maytu ci ñi ñu nangul ci ñi ñu nangul rek jàpp nañu lu baax Sëriñ Tuubaa ko ndax ñii liggéey lii ay gone yu tuuti lañ liñ defee li ñuy def ba nopp ba am ci expérience bañ bañ jàpp ne baax na amaguñ bénéfice lu toll na liñ ci jox waaye jàpp ne la noonu suñ Tuubaa bëgg rek dañoo bàyyi suñ wala bàyyi suñ bëgg bëgg dugg si moo tax ñu def nii dañ koy dañ ciy doog a dugg ñaar lañ waxoon na lañ ci def waaye bi ñu demee ba ci biir ñu xam ne suñ Tuubaa moomul lu tut ñu ne nañ ci wut ñeent tey fàggu jiwaat ba xam danañ mën a am ci bunt yi bunt yëpp fu waa fu waay jaar mën a mën a raxasul na niñ la ko digale ndigal li nag mi ngi tàmbalee ci sëriñ bi ñun ndigalu sëriñ bi la ñuy def ñu ndigalul kenn ngeen baal ma ko jàpp na si ndigal la ñuy def defuñu ndigalul kenn sëñ Tuubaa la ñuy def ndigalam si sax mu taxa moo fi moo fi nekkal lim bëgg lañu def mooy lii murid yeneen yi ñi ngi dem di xalaat yeneen xalaat yu mel ne lii ngir andil ko ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi nii kon daal sëñ Abdou Lahad ak sama bokk yi nga xam ne ñoom nañ seqal liggéey bi ngeen xam ne addiyee la daal ci addiyee sëriñ bi ndax sëñ bi bu soxlaa wàllu gam soxlaa kenn ku nekk ci ñun la nga ca man da koy def kon lii bokk na ci jàpp nañ ne ci soxlay sëriñ bi moo bokk taalibe yu tuuti ñoo ko defal ci ndakaaru tey sàkku ñaan ci sëriñ bi di sàkku ñaan ci borom jumaa ji ak jumaa ji ak yéen yi nga xamante ne bi yéen yéen fi nekk sëriñ bi ñu ngi jégg bu baax ci kàddu asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Cheikh Ahmadoul Khadim ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di jot lii itam nuyoo kilib yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi yëpp tàmbale ko sëriñ Afia Mbaye ñëpp ak sëriñ Fallou mi taxaw euh, di rafetlu jëf ju am solo yi nga xam ne mbokki taalibe yi def nañ ko tey jii te lépp ni nga ko waxee léegi rek ngir ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ñu mën a sàmmoonte ak moom bu ko jàppandal rek yaakaar naa ne loolu mooy bëgg bu taalibe yëpp te lii firndeel na ko li ma la waxoon léegi nag euh, ci bi nga may wax ne ma ñoom de lii sax liñ ko tàmbalee léegi amaguñ ci mën ñu def waaye nag yi tey sëñ Tuubaa faju moo leen gën a ñor seen yi bopp faju sëñ ma la ne yitte ju faju moom mi ngi ci biir yitte sëñ Tuubaa ju faju rek kon nag na seen xel dal bu baax te xam ne fii moom lépp luñ fi def sëñ Tuubaa mi tax ñu di ko fi def man na boppam waaye man na waaye mi tax te gëm giñ ñoom ñi ñoo war a wéyal ndig xam ne moom la sëriñ bi joxe loola taalib bu nekk ci fa la war a nekk waaye taalib bu fa nekk itam aajam dana faju biir aajam a faju biir ndax kon na ca sarti Murid Saadix melay Murid Saadix ni ko Sëriñ Tuubaa waxee woon ba mu njëkkee wax as-sidqu fi mahabbati sayxi abad lam ca tegoon mooy su mam ci saalu abdi xay su waral xay su waral nag mooy fu sëñ bi joxee ndigal rek nga ne bërët jëf jëm ci doone damay xaar ba man nangam doone damay xaar ba am nangam ñoom nag loolu yi lañ jëfee ci nii nga ko waxee kon nag na seen xel dal ci ne lépp loo xam ne ci dig nañ ko ab murit bu dëggal sañ nañ koo yaakaar. waaw alhamdulilah. dañ di di sant bu baax. waaye sunu kenn sax amul solo. waaye dañuy seere rek. seere si it mooy ginnaaw dañ koy nekkal taalibe yi barab bii. dañ koy seere ci turu taalibe yëpp. seere ne liggéey bii nga xam ne moom lañu liggéeyal sëñ Tuubaa andi ko ci barab bii. agsi na te nekk itam luñ fi soxla. alhamdulilah doon na itam luñ fi soxla lool. kon mel na ne ñëw na ci waxtu ñu ko soxla ñëw na it fi ñu ko soxla ay taalibe Serigne Touba yi ko soxla itam ñenn ci ñoom ñoo ko def andi ko alhamdulilah kon nag alhamdulilahi rabbil alamin rek moo ci war a topp dal na ko sëriñ bi nangul boppam te teg loxo itam ci seen kërug liggéeyukaay gii ba mu àgg foo xam ne sax lañ doon séntu séntu ak kawe séntu woon na dana àgg foofu suñu borom mën na ko ci barkeb sëriñ bi yàlla na ko def di santit nag seen kilifa gii di sunu kilifa gii ngeen àndal di sëriñ Xaadim di leen wax ne euh, liggéey bii xam na lu mu ci doon jàpp na ko lool itam lii itam du yoonam wu njëkk bu mu fi ñëwee ami ci ay taxawaay te fépp fu mu dem itam mi ngi cay soññee ba ci bitim réew ma nga fay soññee ni ci taxaw bu baax a baax a baax loolu nag xam gum xam njariñ li nekk ci liggéeyal sëriñ Tuubaa moo tax mu yéene ko ñëpp ni mu yéenee boppam jariñu ci liggéeyub Serigne Touba noonu la yéenee ñëpp ñu jariñu ci liggéeyub Serigne te noonu la ciy soññee ñëpp ngi koy ñaanal bu baax ci barkeb maamam bi tedd ja way juróom bu baax yi boroom borom gën ko fay yàggal lool lool lool te may ko wér te bàyyi koo comme xelam ba lim yéene ci liggéey Sëriñ Tuubaa mu àggale ko te yàggal fi sunu kilifa yi dem Cheikh Abdoul Fatah ak ay magam ak ay rakam ak njabootam gépp ak njaboot Sëriñ Tuubaa gépp ba seen yéene ak sunu yéene ci ñoom lépp suñu borom àggale ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu وحبنا كن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسلم على النبي وسلم فقط في هذه